السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباكي جولي مباكي تالبي نيجي لين نوي دي لين زيارة دي سنو بروم دي دفل جامو فنو مانا نيك سنو حكمة بنك تاي وخني لا يدرك النائم أنه يحلم إلا بعدما يستيقظ كذلك الغافل عن الآخرة لا يدرك ما ضيع إلا بعدما يأتيه الموت ربنا لا تجعلنا من الغافلين Eh, mbokk yi xikma bi nee na kii nelaw du xam ne mi ngi gént lu dul bu yeewoo ginnaaw bu yeewoo lay doog a yëg ne mi ngi doon gént waaye jamono ya muy gént du ko yëg ndax su ko yëgoon am na foo xam ne su fa gént ga bëggee jëm mu arrêté ko walla mu dagg ko waaye boobaa du ko yëg bu paree rek ba yeewu la koy door a gis yëg xam ne moom mii bi muy nelaw kat géntoon na nangam ak nangam mu ne noonu nag kii dund ci àdduna te sàggane àllaaxiraam noonu lay mel day mel ne kuy nelaw rek du xam dara ca lay xew àllaaxira lu dul bu faatoo rek su faatoo rek gis la fa nekk jamono jooji ka suñ borom subhaanahu wa taala di wax fa kashafna anka xitaa'aka fa basaruka al yawma xadid euh, dem bay sukkuraat ba nekk ci nga xam ne fi ne amatul wàññiku lim am rek mooy dem bu amul delsi yàlla daal di muri kiiraayam diggam ak àllaaxira mu xam la fay xew su boobaa wàññi ko dootu mën a sotti ndax dootu mën a wax dootu mën a def dara xooliin rek lay def woo xam ne xooliinu ko am lu muy gis la te bëgg misaal te mënu ko waaw mu ne kii sàggane àllaaxira noonu yi kuy gént mel ni lay mel ba keroog mu faatoo rek doo gis ne ndeke lii ñu ma doon wax kat am na waaw moo tax nga dégg alquran di ko wax xata iza jaa ahadukumul mawtu fa yaqulu rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun mina eh, wa akun mina saalihin mu ne waa ji daal day sàggan di sàggan ba booba mu gis la xew mu ne yow yàlla tewoon nga maa yeexe bu ko defee mu góorgóorlu mën a saraxe mën a def lu baax mën a bokk ci gaayu baax yi fekk loolu wéy moo tax borom ma bi ne yow sama borom yàlla boo ñu def ñuy bokk ci ñu sàggan euh, mat naa ñaan lool ndax sàggan baaxut lii la mutasawifu nay di wax sëñ Sàmbay radiyallahu anhu jàngal nañu ko ba tàyyi annaasu niyaamun wa izaa maatun tabahu nit ñi dañuy nelaw waaye bis buñ faatoo danañu yeewu yal nañu yalla ye ci biñuy dundu te di tal di man di am jot gi di am wér gi ñu mëna gaaw def lu baax ndax yalla buñ démé bu mënatuñ ko man no jariñ ñu ngi ñaan diko ñaanal bépp julit yal nañu suñ borom dimbalel bopam wa taala yermandeem ji yaatu ja yalla nañu ci dimbal ba yërëm ñuko fi ci aduna ñuy def liko neex ba buñ dajé moom ëlëk mu amal ñu jariñ ñu sant ñepp di gëreem di jéglu wasalaamualeykum wa rahmatullah